<laughs> dama jàpp ni président la République d' abord il s'est en liberant Amadou ne ko demal campagne est déjà une un autre signal. Ouais. de sa volonté d' arriver à des élections libres transparentes et apaisées. même voilà d'être en loolu jàpp naa ni et Amadou itam remercier ko. ci li mu ko defal. l'a pas mal pris. ah oui il l'a remercié li mu ko defal nommé ko ministre des finances nommé ko affaires étrangères delloowaat ko def ko premier ministre proposé ko candidat au Benno Bokk Yaakaar Feddi ko ak loo mënta def ak loo mënta ànd naa ci ak yow ñun ñëpp ñu rafetlu ko parce que bu demee woon na mu nit ñi nit ñi xaw a compliqué ñun ñëpp rafetlu tey ambiance bi am ci conseil des ministres ba président jëlee décision yëgal ko ñëpp. Mhm. libéré ñun ñëpp ministre yi ne leen maa ngi leen di gërëm leen sant fii ak suba nag naa defar gouvernement mais nag nga xam ne am naa ci kontaan ci seen liggéey àdduna nag nii la lu nekk day jeex. donc on à on qui se manifeste comme ça parce que bu ko neexoon tey ci ngoon lay jël décision yi ñun ñëpp yëg ko télé ak rajo. Mm-hmm. mais il a il a préféré convoquer ñëpp. waxtaan ak wax sa posture il y a pas eu de débat sur toutes ces questions te bu doon keneen mais ñu ne débattre conseil constitutionnel d'accord naa ci am na ay juristes. de mm-hmm. grands juristes qui sont au conseil au conseil des ministres mais il y a pas eu ce débat il a dit la décision est prise respectons-la essayons de la mettre en œuvre. j'estime que encore une preuve de li tax suñu fierté. ñun ñi nga xam ne dañuy wuyu ci Macky Sall ak sénégalais yi sénégalais ànd ak moom ak ñu àndul ak moom déglu naa tey débat assemblée nationale le matin gis naa ay député yu nga xam ne mosuñu ànd ak moom rafetlu ni muy doxale mm, mm, mm. et loolu tamit c' est aujourd'hui am na ay sénégalais yu ci def nii. donc ceux qui disaient qu'il a raté sa sortie dans quelques mois devraient revoir leur leur euh, le Sénégal se rendra compte de de la hauteur et de la stature du président en tout cas je n'ai jamais vu. un modèle aussi d'humilité et de tolérance et ce qui s'est passé aujourd'hui dans d'autres pays ça aurait créé d'autres